jafe-jafe yu mag lañ am actuellement meeting bu may def ni Saalum Diané tey oto Touba Toubacouta lañ jaar yem Saalum Diané munuñ ñëw Kula auto yi départ yëpp auto ñëpp auto yu mag yi sama camion frigo yi indi matériel yëpp ñu ngi gaare par Toubacouta lañ jaar parce yoon Kula bi baaxul. yoon bi mo dox digënté Kula ak Kër Saalum Diané. de kii kay nawet la ma daw ma jëlon sama moyen defar ko. indi ay tracteur ay benn ñu sol ay saako pour oto yi mën a jaar ren ma pare pour président gis ko mu ne mu jël lii def ko liggéeyam Assaroute mu jóg mu woo directeur Assaroute ñu xam ne Kulaar commune Kër Saalum de si dëkk bii lañ bokk ñu taxaw ci nu mu gën a gaaw defaral suñu yoon bi. ci yoon bii moo dem ba ba Nioro Alassane Tall ne Nioro Ndëri bii nii moo dem Nioro Maam Ndëri Toubacouta la génne dem ba Nioro Maam Ndéri donc ñu mën a jàppale nu mu gën a gaawe suñu yoon mu defaral ñu Kulaar mu am forage courant bi ñëw mu doy mu am forage xale yi am lu ñu jàpp. forage yu depuis un mois mu ngi dañu am problème forage nappi commune Saloum Diané Bariya ba léegi moo nekk tout près mais ba léegi mënuñu am courant ndox bi fo ndox wax noppi. loolu yëpp sama problème parce que man bu njëkk nekkuma moon maire soñu ma dugg ci yooyu mais population dañ ma fal am yaakaar ci man donc man tam yaakaar bi président la am ak ñu mu àndal douze kilomètres mu am différent problème loolu la ñu am dañuy war a def pont bi ñu butime ko ñu jël Toubacouta ba Nioro Mamounde def ko tali quarante-huit villages moo nekk commune Kër Saalum Diané hmm. habitation quarante mille d' habitants lañ. courant cinq villages ñoo am courant mais malgré keroog bu président reçu palais wax na dina ma jàppale courant fan yi commencé ne indi courant yi. dëkk commune bi yëpp ñoo am problème ndox actuellement. dañoo am napp bi moo am problème ndox bu neex la ñu am ndox baa ngi nii fii foo fii waruñu am problème de parce que ndox ba na ah cinquante centimètres ndox baa ngi nii filmé ndox bi di yëpp tool ceeb yaa ngi teeni leen la tool waru man tam depuis un mois dañu am problème do forage Sal forage Saloum Diané dafa am pro dafa am paan forage Kër Baka jaw am pan, bu Ndaraame Ibra am problème bu Njaakunda rek moy dox actuellement te ba dekk yeb kular warna am forage Baria war na am forage Ndaraame Ibra war am forage. loolu yépp mm. mooy suñu programme te pour président gis lii mu jàpp ci mu xam ne parce que ñun fii lépp lu mu bugg danañ ko defar ñun tam lu ñu am mooy mu jàppale ñu defaral suñu commune bi. wàllu santé bi dañoo am problème ñun toll dañu bugg commune bi mu am au minimum na centre de santé boo xam ne ñëpp. parce que fii nii boo feebaree sookoon ngee fajoo bala nga feebar balaa ngee soo sookoon sa feebar day gën a yokk parce que yoon bi baaxul bu la tegee oto balaa ngeeg jigéen yu biir bala ñuy fa dañuy am avortement am problème ku feebar boo balaa ngeeg sookoon da ngay am problème yoon bi baaxul léegi ñu dimbale ñu montuñu pot de euh, centre de santé fu fu nit ñi mën a fajoo parce que loolu ñun loolu rek lañ am suñu population jàppale leen ne population lu ma développement mënu am sans route day dagg te damañu bëgg fii te Prodac bi ci la de Niombato fii la war a ñëw commune Saloum Diané bi la Prodac tool yaa ngi ni Prodac yi ñoo nekk fii nii war a def Prodac te yoon bi baaxul développement munu am sans yoon ku feebar bu bu dee dafa bëgg a faju bu yéegee ci oto balaa muy feebar gën a yokk parce que yoon bi baaxul